alxayri jib na ci diggante acteur bi di Bouba bu série infidèle ak Fama Thioune ñu ràññee woon ko lool ci télévision Futur Média ñoom ñaar nag kan musta na leen ndox ne am na lu dox ci seen diggante moom Fama Thioune ak Bouba nga xam ne sax rôle lu bad boy lay joué ci série boobu di infidèle animatrice bi di Fama Thioune nag ak Bouba daal nañ leen maye demb ca ngoon mariage boo xam ne def nañ ko ci discrétion ak simplicité moom Bouba nag defa rek daal di takk Fama ak xamee ne saison 3 bu série infidèle léegi mu jeex ñu jógee ci fiction dem ci réalité bés ni ki démb nag Fama Thioune mi ngi wuyoo madame a dem na sax bay binde ci statèm na moom mooy alalu taalibe Cheikh bi